ci weeru avril ci at bi ñu nekk ci la président di jeexal mandaawam foofu nag mooy date bi sës bi nga xamante ne war nañu fexe ba organiser élection tabb beneen njiitu réew président de la république nag moom mi nga xamante ne moom mooy autorité suprême bi gën a kawe ci nguur gi moom nee na dégg na te dina jëfe li nga xamante ne moom mooy décision juróom-ñaari sages yooyu nga xam ne ñooy àtte foofee ca conseil constitutionnel. waaye nañu sóoraale ne am na ñaari camp yoo xam ne dañoo taxaw indi lu mel ne beneen crise institutionnelle ndax ñoom ñooy def lépp pour ñu reporter waat élection yi yokkalaat président mandaawam te ñoom ñi ngi def lu ne pour ñu bañ a amal ay élection fii ak mandat président bi di jeex ku ci nekk nag yaa ngi dem di xëcc sa wet ak di teg ay lay ci wàllum yoon waaye gis nañ ne li nga xam ne moom la conseil constitutionnel dogal kenn waru koo teggi wala ñu si dellu ginnaaw ñenn ñi nag ñoom toll nii ñi ngi défendre di lay lu nekk ngir ñu recommencé waat processus électoral bi tàmbale waat fa ñu tàmbalee woon ba fa ñuy yeggee fa ñuy tànnee ñu war a nekk candidat ndax sax xalaat nañu ban impact maanaam ban jeexital reporté waat yi yokkalaat Macky Sall mandaawam la jeexital boobee di am si jàmm bi am si réew mi ak respecté bi ñuy respecté chartum ndawum réew mi ñu bëri duñu nangu loolu te bu ñu toxalaatee élection yi bàyyiwaat Macky Sall mu toog fii beesu ñaar fan ci weeru avril dina amaat crise bu gën a doy waar jëm ci wàllum politique ci wàllum koom ba sax jàmm bi am ci société bi te scénario bu gën a yées bi ñu am jamono ji moom la ñu nar a am tey tamit institution yi ñu naan dara doxul boobee nag la lépp di taxaw reporter élection yi dara jaru ko